waaw ana entraîné entraîné. entraîné lan. kii gars yi dañ maa jël nervi. nervi. waaw ñan ñoo la jël. waaw gars yi. léegi fi ngay entraîné. waaw. yow gàndos ke. fii dafa may fii fii may gàndos. oui ma ma ma de lii gàndos la. gàndos xanaa xamul pour mbër yi la mbër ñooy defar seen tànk. loolu la. pour ka bu nervi amul ñoo xale gars yi daanaka léegi mbër yi xaw dun daan. waaw léegi jël daf leen nervi. léegi yow ci ñaan ñoo bokk bokk. déedéet ma ma ma ma ma su ma entraîné ba am doole. damay def formation gàdd lépp loo se ba pay soo nekk neveu maa trois étapes la. fii nag mënoo fi am daara bu dee da ngaa bëgg am doole ah continuer a defar yaa xam defar. Hmm. côté ma. nii nii lépp pour la côté ma rek. defar da ngay ba ci suuf boo bëggee cuisse da ba ci suuf. mais boo ba ci suuf soo wàccee nga kii loo mooy cuisse. Hmm. yaa gën a xam ne lii du la may doole. xool boo commencé léegi léegi laa commencé léegi am lii léegi nii léegi am lii. yow li fi su ma fi dee ba suuf fu ma jëm. yow lan nga fi am. la yow lii nii la ma semel li. ne mel ba nii la nii la mu semel. yow man man yàq sa luur waaye yokk na. yow yow sooy yow da nga a rey fii sa bopp rek. lu lu lu yëngatu. yaa ko yëngatu yaa ko yëngatu. waaw daa wuy yëngatu. ko ah. waaw ah, ah, ah, man samp bu fekkee da nga am doy da ngay samp. samp la bu mënoo samp nga dem saal samp nii appuyé avant. waaw samp sa loxo nga pompe ni def naa ni ande gars yi gars yi façon façon tamit amul. mais gënal avancé gënal avancé damay gën a avancé encore gënal avancé. encore encore. bay la. non mais da ngay gën a wàcc kon da ngay gën a wàcc. waaw gën a wàcc. ok gën a wàcc. sa loxo yi na gën a wàcc nii. kaama kaa si suuf sama tunge. kon far fii pour yëkkati non non non da ngay gën a wàcc da ngay gën a la yëkkati non non gënal wàcc xanaa antenne woo bëgg am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 109 75. Notre site internet www.cefas-du6sénégal.com. boo xanaa bu yàgg de. ah xam nga kon loolu la may doole loolu du la may dara du la ko may da ngay appuyer avant boo sonnee boo affaire yi planché dugg nga ñëw ñu dem salle. saa yow daa xool bi fi a commencé entraîné ba léegi dafoo foofu sax loo xamante ni. waaw li ma yéen nii mënu ma yéen ñàkkuloo di yow man mi wax sax maa la gën a ñàkk. mais seetlu waxoon. ana sa ñàkk ana sa ñàkk te yaa yaa entraîné man entraîné na man damaa taxaw di wax ak yow rek. man duma ñàkk te man maa a ñàkk. man man sama ñàkk ndax ay wax doo gën a. entraînement pur moo koy gën a. waaw kon amoo ko entraînement pur ko. nga nar a rey sa bopp rek nga nar a rey sa bopp rek da ngay wàcc da nga ciy boole wàcc da nga ciy boole ci suuf boole ci wàcc. kii la def ne eh eh. bàyyi ko bàyyi ñëw fi boole. da xiif bu xiifee yi lay def. da da naan la wax naa la. entraîné wàcc da ngay wàcc ci suuf nga yéeg wàcc yéeg suuf looy suuf yéegaat. saa saa bi ne fee. boo ëllëgee antenne. ma foogoon doo wax ko si c'est ça ba bële la dem saal ba nga nekk fi. daanaka ba bële la ci kanam tuuti rek heure bi dañuy day heure bi baax na ci kanam baax na bu la neexee tamit nga bàyyi ba suba. daanaka. kon tey lay wane rek. teel naa sonn. aywa <laughs> foofu bi la yëkkati poids. foofu da ngay yëkkati poids. da ngay ah. da ngay vélo xool da ngay corde. da ngay appuyer ay poids yu diis ça dépend ci kilo boo mën a yëkkati rek. foofu dafa garaaw de foofu moom da nga fay dugg tey commencé am doole tey waaye fii doo am dara. tus doo ko am nañ jaay nañ jaay ci maaga bi léeg-léeg fa benn sànni ku ne ñaari sànni. waaw mu dóol. waaw wala benn sànni ma ñaari sànni comme ma antenne. waaw après ñu dem foofu. xanaa lekkul may coach bi. waaw li nga lekk kay laay lekk. déedéet maa maa antenne. déedéet waaye man may coach man maa naan la nii appuyer avant jóg avenir avance mën naa ko wax da ngay lay lekk loolu laay lekk mënoo ko ñu tolloo. yaa sa. ñu ne saa ba da ngay commencé njaam nag. su ma su ma dugg ma dugg nag bàyyi ma dugg bàyyi ma duggal nii fët. tekki tekki yére bi gaaw njaam nag njaam commencé yëkkati sa dënn bi commencé woon ni mel ni yow da ngaa am doole bu ko defee gars yi naan gis nañ ko muy entraîné yi gis nañ ko muy dugg saal comprendre nga. acca fee loolu da ngay njaam njaamu mbër. pour ko def nii waa su ma ko normal rek su ma waajee yow ma soog waa mbedd bi laay laay loolu. acca fee xool yéen fii ñu wax. mais ni nga def sa tur la laay def sa tur. waaw da ngay da ngay sant ci ginnaaw. di sànni ci ginnaaw sànni li ci ginnaaw way voilà léegi xool da nga yëg sa dund bi nii ah sànni ak ñu def ah dina doxee ankay ne naa ci doxee na sa tànk da nga yëkkati naa ko teg waaw tegal beneen bi lii kanaala la njaaw kanaala waaye mooy njaabu mbër ñaam bokk ñu mais da nga defar ni ah ak fis ak fis Vito Cocktail une explosion de saveur dans une même et seule bouteille fruits yëpp ñu jëmbatee ko Sénégal si anam yu sell te naturel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 41 06 06 Vite au jus, le jus fait